lépp ñëpp a ngi ne di xumbal lu ñu naan Toussaint maanaam mbootaayu gaañu selañ yi ñooñu nag nekkul ne yàlla def leen tibb benn yoon ne leen yéenay doon ni su sela yi déet daa nekk ñoo xam ne dañoo déggu kàddu yàlla jublu ci yenu yàlla yi di a di leen dund saa su nekk ak seen néew doole mais bañ xaat yi topp ci tànk Yeesu Krista moom mi woote ndax ñun ñëpp ñu mën a mel niki baay bi na ngeen doon ñu sell niki seen baay bi nekk ca asamaan doone sell donc am nañu ay matuwaay yu jàngu bi tegal nit yi ndax ñu mën a roy ci suñu Krista bi musalkatu àddina bi dox ci tànkam noona bés dinañu mën a àgg ci nguuru arjana ñoo ngi féete fête Toussaint c'est-à-dire ñoo ñuy doole njukkal ñoo xamante ne yàlla da leen euh, woote ci turu sainteté ñoo xamante ne euh, xam nañ leen ci calendrier bi wala xamuñu leen ci calendrier bi yëpp tey ñoo ñu njokkal ñëpp daal euh, ñu bëri nag dañ koy jaawaatle commemoration des défunts ñu bëri dañuy dem doole njukkal ñoo xamante ne dañoo génn àdduna donc comme ni mu ko waxee rek tey ñoo ngi féete fêtu tous les saints et saintes de Dieu. alors li ñuy xumbal tey ñu bare dem nañu euh, ziyaare nañ koy waxee maagal euh, seen mbokk yi nekk ca armeel ya loolu nag nekkul benn xewte bi ak bu tey tey gaañu sele yi bu ëllëgee ñu dellu ci armeel yi ñi ko mën dem ñaanal ñi fa tëdd ñaar ñi nag bokkuñu mais ci ñaan boobu ñu ngi yaakaar ne ñooñu dinañu jot ci di lii di maye mu yàlla maanaam seelay boobu mais ñaar ñi xaw nañu uute uute nañu sax ah, doxin bi uute na donc teeyoo tey gaañu seela yi bu ëllëgee suba ah, ñu fàttaliku ci ngëm ak ci ñaan dem si yàlla yi